<laughs> ah waaw moom ah, li doy na waar di asalaamualeykum <laughs> ah, fa tabarakallahu Serigne Moustapha Al Maktoum ñu ngi lay nuyu ña ngi lay ziyaara ña ngi lay bëgge di sant yàlla fi mu ñu defale ci barab bi mu ñu defal lii mu ñu defal ndax ku xam borom bone kaare bi wàcce ci kaw ñu teg ko fii jële ko fi dugal ko fii mu tëdd nga fexe ba tàkkusaan gi ñu nekk ci diggante bi jazakumullahu anna xayran am nañu lu jafe lu waay soxla na ko fi ñaan lu waay soxla na ko fi ñaan dana nangu dama ni lu waay soxla na ko fi ñaan dana nangu Serigne Moustapha fa tabarakallahu yal na yàlla dafa la cat yàlla dolli la wér yàlla barkeel njaboot gi la booleel yàlla barkeel leen fa tabarakallahu sa papa Muniru Sarr moo daan wax ni amul kenn ko paase def la nga amul kenn ku paase def la nga man ku ne la nga man rek ngay def yow nag li nga man lépp def nga ko mooy sa dund yëpp nga yemale ko ci mbaax ak jàngale sa dund yëpp ci mbaax nga ko yemale ak jàngale kon nag Serigne Moustapha yàllaay fay yal na la fay ca bu lay fay mu fay la ko ci wér gi yaram fay la ko ci dund gu yàgg fay la ko ci lépp lu yiw fay la ko ci njaboot gi la yàlla booleel ba boo toogoon tey lépp baax toog ca kër ga dem leen damay noppalu tey lépp baax ah fa tabaarakallaahu daanaka li ma bëggoon wax sax du li mooy sa ñaari mbokk yii toog di soxna Daba Mbay ak soxna kalambay Mbay fa tabaarakallaahu wolof dafa wax ne ku des dese sëriñ mu niiru ndeem nangu nga waaye ñoom nangu nañu ndax kër gi lépp lu koy sagal ña ngi ci lu koy dundal ña ngi ci ku ñëw rek ci nga leen fekk lii bis bi yëg naa lu mu leen jaral man suñu wootante bariwul waaye démb ak tey ku ne woon na ba si ñoom junni yoon pour bëgg mu baax rek alhamdulilah yàlla baaxal na ko yàlla nañ ko muurloo ca yàlla bu ci seytaane am yoon a ah, fii nga taxaw nag li ma wax bi lew na la doom lew na la doom sa barab la yaa ko moom ndax ñi ko moom ñi la meññ ñoo ko moom kon fa tabarkal ñëw nga ci sa cër andi nga ji nga am ci sa cër yàlla nañ ko jariñoo ca ñu ko teewe ko at yu baree bare léegi soxna Daba dafa ne moom kay li ma xam moom kay bu tabaskee na siyaasiwaat bu tam xarit na siyaasiwaat bis ba na siyaasi rek <laughs> ma ne ko ma ne loolu ma ne ko na na yëpp yéene la rek yéene rek la yàlla nay barkeel yàlla nay lépp barkeel Serigne Moustapha daal lii Mara Cheikh wax amul lu ma ci mën a teg amul lu ma ci mën a teg xanaa da nga ma li ñu naan faaxidu shay laa yoxti rek moo ci ne da ngay borom baax rek ak bëgg bëgg fàttali nit ñi démb waaye ku ne xam na ni li mu fi wax fa tabaarakallaahu yàlla nañ ko muurloo yàlla nañ ko yàlla sàmm ko sàmm bokkam yu baax yi ko yàlla booleel muy capitaine muy sëñ Babacar mii yal na yàlla ak ñu am ñëpp nag yal yàlla sàmmal ñu leen sa mbokki bopp yii di Cheikh Tidiane Sall ak sëñ Pape Malick Diop fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu am na lu ñu xam ci ñoom ci pas-pas ak cofeel nga ñaanal leen yàlla yàlla dolli leen a sàmm ñoom itam ak ñi ñu àndal ñëpp yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ci sa barke baay sa barke maam ak sa barke bopp buñ ci ñaan yàlla dana ko nangu yàlla na ko yàlla nangu ah defanaa jaru ko woon sax kon ñu ngi yem foofu jox capitaine mu ubbil ko rek ah bu paree lu mu wax ñu déggandoo ko ca bu ñu demee ñu jëfe ko waaw ndax wax jëfe la sant yàlla na ko yàlla nangu jërëjëf si Malick barakallah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu